du daw Moustapha du daw du raf ku pare pour dee doo daw tey ji mën ko bàyyi mu dem ba léegi ñu convoqué waat ko mais loolu yëpp ñoru leen il faut ñu xoy moom nee na dafa dal ci waa Pastef aa <laughs> kay Pastef da nee na lu kenn amul dina ko am te du ko mas a am mooy ku ko tudd dee ñu ne ko da ngaa saaga Pastef loolu da lañ ko arrêté délai bi ko arrêté dégg nga de yéen da loolu nii lañ mel xam nga kii kay yaru ko nii lañu mel nag ñoom nii la forme formé ñii ñii ñu ci ëpp ñëpp soreewuñoo xaj soreewuñoo mala kon bu safa jaxatee ko wax na dëgg ndax bu fekkee ni façon yii ñoo fal waa jooju ñii kii de sorewul mala dégg ngeen saaga ba ma saaga man ma suma xaw ma ndey xaw ma bàyyi te mën naa koo jur sama sama doom bu ni ko jur ba mu waye xalé yu melni ño fal wa joju ak groupe mbok xalé xale yu mel noonu ñoo bëgg a terroriser Sénégal ndëpp Sénégal xale yu mel noonu la Moustapha Diakhaté bëgg ni eh delu si len ñëwaat len eh xalé yi da ngeen reer sama doom sama jarbat xam nga kii man duma ko wax dara dama ko yërëm ndax mok dof dof la ay ah, yi nga toyil mëna ma dul yene a dégg saaga direct ci man def boko dara romb nga mu doom ni lañu mel Sénégal nak war ngeen a yeewu ne rew mi kenn boobu ti kenn du fi ndapp kenn dégg nga wax du réew mi kenn moom bu kaw. ziare naa leen gars yi ci lu ngeen ne baa yéen a si jàmm bu baax a baax a baax dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom maître El Hadj Diouf yëkkati na ko kàddu yi ni mel la kii li di Moustapha jaxate yëkkati am réew nag bu fekkee ne mag ñi yaruwuñ gone ya bi ñu mën a yaru am réew bu fekkee ne daa am mag ñu réew réew mooma dina am gone ñu réew bu fekkee ne mag ñi lu leen neex la ñuy wax kon gone yi lu leen neex la ñuy wax loolu nag jamono ji moo am ci gis ngeen ne yenn mag ñi kàddu yi ni yëkkati ba nay sax rus nañ koo yëkkati commencé ko ci kii di Moustapha Diakhaté ci kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko moom Moustapha Diakhaté kàddoom yooyu jural na ko tey jii mu war a fanaan ca karaya te yàlla na mujj nag ca kaso ba loolu lañ koy ñaanal ndax kàddu yi mu yëkkati metti nañu lool dafa fa metti yem ndax ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo wooteel président Ousmane Sonko kon kàddoom yooyu mu yëkkati ñun ci lañ bokk te loolu metti nañu lool yàlla na des foofee ca kaso ba loolu lañ koy ñaanal ndax kàddu yi muy yëkkati metti nañu ginnaaw loolu moom Maître El Hadji Diouf kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko nee na ñun ay xaj lan moom Maître El Hadji Diouf kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko dégg ngeen ko moom mag la moo xam ne nii lu ko neex lay wax te am réew nag bu fekkee ne am na mag ñu réew réew mooma faw mu am gone yu réew loolu jamono ji nag lañ commencé ci nemm ko ci réew mi loolu sax moo waral kii di Moustapha Diakhaté ñu woo ko ndax mënuñoo nekk ci am réew goneer war a xool ca mag ña mag ña réew kon gone fu mu jaar dañuy réew kon Moustapha Diakhaté faaw ñu woo ko daal di koy yar ci kàddu bi nga xam ne ni ñu ngi koy yëkkati ndax am réew goneer ca mag ña la ñuy xool bu fekkee ne mag ña dañoo réew goneer dañuy léegi nag moom Moustapha Diakhaté faaw ñu woo ko yar ko ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati moom Maître El Hadji Diouf it kàddu yi dégg ngeen ko nee na ñun ay xaj lañu waaye moom Maître El Hadji Diouf nag mag la moo xam ne comme Moustapha Diakhaté rek ndax moom mii amul ko gone koo xam ne di nga xool ci moom ba gis lenn loo xam ne di nga ko ko mën a royee kon moom maître El Hadji na xoolaat boppam bu baax a baax a baax bu fekkee ne moom avocat la na yor jukkoy avocat wala mu nekk laneen loo xam ne moom la bëgg a nekk mais kàddu yi mu yëkkati ñaaw na loolu moom maître El Hadji Diouf nag dafa nekk nit koo xam ne nit ñi dañ koo ràññee ci li nga xam ne moom la opposition bi di wax ndax opposition bi dañ naan fen du aw saaga moom maître El nag dañ koo ràññee ci ay fen kon ku ne ko yaa ngi fen wuru koo metti opposition bi ñoo koy wax ñu mën fen bu saaga moo tax ma ne Maître El Hadji Diouf dañ koo ràññee ci ay fen kon buñ ne ko yaa ngi fen loolu wuru koo mel réew mi nag bu amee mag ñu réew faaw mu am gone yu réew bu ñu amee mag mu mel ne Moustapha Diakhaté wala ñu am mag mu mel ne Maître El Hadji nga xam ne lu ko neex wax kon réew mi faaw mu am ñu réew ba tey Maître El Hadji Diouf. wala dégg ngeen ko yéen ay eh, man bëgg ma journaliste tapé man dama bëgg bu ma ngeen ne nga parce que man du ma fen mukk da nga ne dégg nañ ko bëgg vous êtes les historiens du présent yéen yéen a mais bu ngeen fekkee ñi mu wax la ngeen fekkee du ngeen dara journaliste bu fekkee la mais kooku mécanicien bi da defi menuiserie wala leneen bu dee yow yaa wax li am war ko témoin de l'histoire ñi wax wax gën a mig ta wax ndax am na ragal doo dara dama bëgg Sénégal ndax benn groupe dañoo napp senegal yi nappaaje leen moom leen dóor leen duma leen ñu ragal ko loolu du fi am gars yi jóg leen ñeme dëgg bi wax dëgg teg ko ci yoon. mu ngi noonu moom Maître El Hadji wax na journaliste yi ni leen bu fekkee ne damay fen nii leen damay fen man bëgguma ko ragal kon Maître El Hadji Diouf nangu na ne fen du aw saaga moom Maître El Hadji Diouf nag ki ko ko wax loolu da ko koo metti ba tax na mu a ñun ay xaj lañu moom Maître El Hadji Diouf loolu la wax. ginnaaw kàddu yi nga xam ne nag kii di Moustapha Diakhaté yëkkati na ko donte ñaaw na ñu ñaawlu ko ba pare daal di koy métti lu moom mi nga xam ne moo di Maître El moom it bi mu ñëwaatee mën nañu ne comme kàddu yooyu rek la waxaat ndax nee na ñun ay xaj lañu te xaj nag ku ko dégg xam ne kuñ ko wax ku ne saaga nañ la xaj kuñ ko wax rek saaga nañ la ñun nag réew mi mag ñi lañ fi am bu fekkee ne ñun nag ci mag ñii lañ nar a xool wala bu fekkee ne mag ñi lañ na la roy bay bo ñun ndaw ñu xolaat suñu bop bu baaxa baaxa baax ndax mag ñi kenn du leen roy mag mo xamne saga wala mag mo xamne day tok di wax wax yo xamne ni gonay sax rus nañ ko wax réew moomu fo naa ne mag ñi faaw ñu yaa yaraat leen bu baaxa baax te lool la gis ñu dal di koy def kii di Moustapha jaxate ci kàddu bi nga xamne ni ñu koy sa su nekk sénégalais yi diko metti bi motax tay ci mo musafa jaxate bu dem bu fu la ci karé ku mel ni na parna pour dé ni la mëna am tey ngeen mu mujjee gis ndax li may wax dama ko gëm te saagawul kenn mais am na droit critiquer parce que critique mooy tax réew avancé dem nañ ba ne ko yow li nga danga nga tàng trop da nga dur say propos ndax mën nga wàññi loolu ak ak ndax mën nga excuser wu mu ne pour lan parce que li mu wax leen rek la mooy ku dem. ba wateel ko xamni lam la wax dara du ci deug lam la waxone ni la amna projet bo xamni ñent ju ne cadre Pastef ñoo ko bind muy solution bo xamni senegal Sénégal ak Afrique yëpp mënuñ ko jëriño ñu dem ba yag ñu gagné bi ñu kër gu su projet ki tek ci ay weer ñu né dañoo sant seen ñooñ ñu bind projet ku wax loolu ba pare kon dalaa nax nga mën a ëlbati ko woteelaat ko yow mooy xamuloo dara wala dañ laa manipuler. dégg ngeen yi nga xam ne moom la maître El Hadji Diouf yëkkati ba tey nee na ñun ñi nga xam ne ñoo wotal Pastef dañ ñoo nax ñoom ba léegi li nga xam ne moom lañ def ci seen bopp yi moo leen sonal jàpp nañ ne sénégalais yi ay dof lañ wala sénégalais yi nelaw nañ nelaw boo xam ne nit mën naa jóge ci ànd ba ñëw nax leen bu fekkee ne am na ku ñu mos a nax fii ci mi. Macky Sall la ma soo doon nekkaatu fi kaneen président Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa wax ñuy dégg mu jëf ñu gis lii moo tax sénégalais yi topp ko mais du la leneen président Ousmane Sonko nekkul ne dafa nax benn sénégalais moom li mu nekk da koo jël te ko ci penc mi waa penc mi gis ko topp ko lii ba léegi nag yéen mënoo leen a gëm ne kii li mu am da koo liggéey loolu moo leen sonal bu fekkee ne nag moom Moustapha Diakhaté ak kàddu yi mu yëkkati woon ba tey Moustapha Diakhaté nit la koo xam ne nit ku la ndax moom ci boppam ba léegi moom mënut a gëm ne président Ousmane Sonko li mu am yàlla la koo xam ne ay at at yaa koy xeex yàlla di ko dooleel di ko yokku ba léegi yow mënoo nangu ne kii li mu am yàlla la ngay wéy di ko xeex léegi yëmatoo ci xeex ko sax moom président Ousmane Sonko mais ñi nga xam ne ñoo ko topp wala sénégalais yi nga xam ne nii ñoo wóolu procès bi nga xam ne moom la leen man léegi ñoom nga dese léegi di leen attaqué moo tax saari mag yi nii nii nii nii faaw nga jàpp leen bu baax a baax ci seen i nga xam ne ni ñu koy yëkkati ndax sénégalais yi duñ ay dof sénégalais yi ay nit njaay lañu te yeewu nañ bu baax a baax xam nañ lan ak lan lan war a def ak lu ñu wut a def ñun bu fekkee ne am na ko ñu mos a nax wala koo xam ne ni daanañu nax du kenn ku dul njiitu réew ma woon di Macky Sall ba tey moom Maître El Hadji ci ay kàddu ndax mënuloo gis ñu wax la lu dul dëgg ba pare waññeeku ni la man mosuma a feebar grève de la faim bi ma defoon pour gagner du temps la woon du woon dëgg ku la wax yooyu yëpp nga ni dañ koy top ci toujours bo du nekk li am kon nit normal du mëna mel gis militant il dof di yuxu diw diw diw tam ay diw diw diw diw sans ñu réfléchir c'est ñuy wax ba leen saboté personne ne peut m'impressionner et personne ne peut m'intimider kum ne kum lu neex lay wax comme un ma saga ku ma saaga ma saaga sa ndey ndax jàpp ngeen ne moom Me El Hadji Diouf ndaw ñi war nañoo roy ci moom mag moo xam ne nii na lu ko neex lay wax ba pare daal di jaar fi ñaan nit la koo xam ne tey jii moo toog ne day joxe ay leçon moom Me El Hadji Diouf mi ne ay xaj lañu Me El Hadji Diouf mag la moo xam ne moom ci boppam mi ngi naan ñenn ñi bu ñuy wax bu ñu xalaat wala bu ñuy def bu ñu xalaat looloo tax ñu woteel Pastef waaye moom ci boppam mag la moo xam ne ndaw ñi sax ñoo ko gën rafet xalaat yi ñoo ko gën a rafet doxalin ndax mag du wax yenn wax mag bi yëkkati yenn kàddu yi moom maître El Hadji nag moom ci boppam waxu fi lenn loo xam ne nii avocat noonu la war a doxale ak client li mu fi wax nii yëpp sore na lool ak loolu moom maître El Hadji Diouf nag nit la koo xam ne man xawma lan lañ koy doyee ci mu ñëw défendre benn client man xawma ko nit koo xam ne dana wax ba wax jeex day attaqué benn nit di ko xas wala mu di ko saaga wala mu koy wax yenn wax yoo xam ne nii wax yu ñaaw lay doon ba pare ne moom avocat moom ci boppam day wax li ko neex ba pare ne kenn du ko wax lenn li nga xam ne naqari na ko ndax déglu leen ki ne ko bàyyil fen moom ci boppam mu wax ci biiri waxam daan ne journaliste yi bu fekkee ne damay fen nii leen ma damay fen ndax man bëgguma ko ragal kon kàddu yi nga xam ne wax nañ ko ko moom ci boppam wax na ko boppam ba pare dal di nangu ñu wax ko ko kon loolu képp koo xam ne nii wax nga ko Maître El Hadji Diouf wuru ko metti ba tey sax fen aw saaga ndax ñi nga xam ne ñoo di opposition bi loolu lañ daan wax ñoom nee nañu da ngay fen du aw saaga ñoom nangu nañ ko Maître El Hadji Diouf nag amul kenn koo xam ne yaa ngi roy ci moom ndax du royukaay kàddoom yi mu yëkkati ak kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkatiwaat mu jëm ci waa Pastef kàddu yi ku ko dégg xam ne mag wala nit ku nite du waxe nii muy wax li nga xam ne nag moom Maître El Hadji wax na ko ci boppam moom Maître El Hadji dafa gëmul yàlla nit la koo xam ne gëmul yàlla ba demee ba jàpp ne sénégalais yi wéruñu wala sénégalais yi naanuñu seeni doom loolu mooy am ndox moom ndax sénégalais yi am xel lañ yor di xalaat comme ni ñëpp di xalaate fii ñoom ñi nga xam ne nii ñi ngi wax gënuñoo yeewu ñu leen di déglu ba léegi ñoom gëmuñu loolu gëmuñu ne ñoom wax ni ak ñi leen di déglu gënuñu leen a yeewu jàpp nañ ñoom ñi ngi wax waaye ñi ngi waxal ñoom ñoo leen gën a yeewu ba tax na lu ne lañ ñuy wax nit ñi nga xam ne ñooy déglu moom El Hadji Diouf nag du royukaay ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni moom Maître El Hadji Diouf yëkkati na ko. kenn formé leen ku wax ñu mbaw la saaga la yéen journaliste xam ngeen li ma leen wax ku fi waxul lu neex seen waa saaga la bu dee damay fen ngeen bee da ngay fen après taal yi ñu taal Auchan yi kër jàmbur yi terre bi ñu yàq BRT université ceci yëpp Moustapha Diakhaté dama ne ko di xoolal boobu peuple est ce que ñun mérité nañ façon nit yooyu di taal seen réew di yàq seen réew ñi ñu mérité kay mooy nit ñuy réfléchir bu ñu doon ràññee di xàmmee ak ni ñu leen naxee nax yu leer naññ ñu mës a woteelaat Pastef. dégg ngeen ne El Hadj moom ci boppam dafa am loo xam ne da koy mett li ko metti nag du lenn lu dul li nga xam ne sénégalais yi def nañ ko muy wooteel Pastef loolu ci boppam moo ko def góomu xol buy bëgg a dagg xol bi moom ak ñi muy défendre. moom Maître El Hadji dafa war a gëm yàlla moom ak ñi mu àndal xam ne réew mii ci neex ak ci naqari président Ousmane Sonko moo fi ne ci nangu ko ak ci bañ ko loolu ñun faaw ñu xam ko Maître El Hadji Diouf nag li ko metti yàlla dogal na ko ba pare buy tëdd di wéq wala muy tëdd di kaddi kaddi yàlla dogal na ko sénégalais yi président Ousmane Sonko la ñu àndal sénégalais président Ousmane Sonko la ñu gëm ci ne moom moo war a soppi réew mi ñoom ñii nag. yàgg ñoo xeex président Ousmane Sonko yàgg nañoo contre président Ousmane Sonko te jëlewuñ ci ndam te ba léegi bàyyiwul ñu ngi xeex jàpp nañ ne ñoom sénégalais yi dinañ mos a ànd ji ak ñoom mais loolu nekkul loo xam ne luy mos a am lay doon ndax nit koo xam ne yàgg na koo xeex yàlla di ko yëkkati bu fekkee am nga xel tuuti wala bu fekkee ne yàlla dimbali na la tuuti wala bu fekkee ne ànd nga ak yàlla tuuti da nga indiwaat sam xel xam ne kii yàlla moom la àndal yàlla àndut ak yéen Sénégal yi président Ousmane Sonko la ñu àndal yàlla président Ousmane Sonko la àndal te ba léegi moom xamu ko ndax loolu mooy dagg xol bi. looloo naqari sama gaañ yi. looloo naqari sama gaañ yi. looloo naqari sama gaañ yi ndax leeral bi Moustapha Diakhaté de leeral xelu nit ñi wala ne yeewu leen kat naxee bi ëpp ne naxee mbaay bi yéen li ndax nax doyu leen yéen kañ ngeen di yeewu Sénégal ñu ne ko yow da nga nar a yee Sénégalais yi kaay fii gi nungu yow dañu lay ndax buñ la bàyyee léegi nañu yeewu. liñ koy reprocher ñu ne ko ndax li muy wax du nakari wa Pastef mu leen meman suma sama yoon ci kum nakari al amin Mbacke sëtu Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu taala borom fas fas nga xamni ci ngor rek lay dox serigne fas nga ñu la dëkk. wa mom ñepp xam nañ lay mbiram kenn nattab lewtu ko. képp ko xam da nga nek mag ba ndaw am jafé jafé new katan mo xam sa awara di noy di lax ngay gaaw yegg. wala nga nekk nit koo xam ne santiroo sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kàttan loolu Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll dara wóoru ci al amin Mbakke surtout Cheikh Sidil Muxtaar Mbakke radiallahu taala anhu kon nag gaañi fas gango ngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee. parce que jeu politique du pour neexal nit ñi man ñeu politicien lo wax benen camp bi do mën du kontaan lolu moy jeu politique dañu bëkkante du lolu c'est doo hypocrisie mooy am vous fekkee ne benn camp du wax lu naqare benen camp bi mais lolu fu am. li nga wax du naqare ñeneen wa surtout wa Pastef mais mu ne wutu wala leen neex. mu ne leen waaw mu ne république bi dafa am dafa dafa fay parce que république bi dafa war a former sénégalais bañ xàmmee ràññee ne militants yi sab di mbawu rek jéemuñu comprendre dara ñu di leen manipuler loolu Sénégal soxlawu ko te looloo tax ñooñu mobiliser ba joxaal leen tey jii majorité Moustapha Diakhaté jaaxle ci nee na gisoo benn programme bu ñu expliqué ci wolof parce que amuñu sax programme. c'est élection C'est le programme là la Modou Issa Fatou Awa xam ngeen lima ma bëgg wax diw moy diw Modou moy Mamadou loolu lañu campagne parce que bëgg ma tour sen tour ñom Mamadou moy Modou loolu lañu campagne ben programme yu Mamadou moy Modou waaw <laughs>

publicité moom du jël si ci li mu waxoon ndax li mu wax Sénégal moo ko ko jaral Sénégal ko jaral tey mu tëdd tey garde à vue ndax Sénégal dañ koy nax di saan comme bébé di ko wax lu dul dëgg mu di nangu di ko manipuler mu di ko nangu di ko wax di ko man mii la ma doon waxoon du dëgg dama doon def grève de la faim mais ko woon noonu gisatu nga topp kila wax loolu ki la ne man li ma wax du dëgg damay dama la doon nax mais bu jógee nga topp ko mu ne ñàkk xam parce que li ñu daan transformer lor en plomb ñak yew moto sama rew di tan ñi dama bëgg bok ci def def ba rew mi yew wala ñu ko yow tay da nar a yaqal ndax da nga bëgg yew rew mi dañ lay tëj kon Moustapha Diakhaté dal de len tay dañ ko tey ba que nee ko da nga yeen ñi di ko yeen nit ñi kat da ngay tax ñu ñak suñu nguur ndax suñu nguur mom ñu ko lol ci naxate projet bu masul am tay nak gaaji ba falu te ñoo gën a xam ne projet bi leen waxoon ne solution yaa ngi nii Sénégal ak Afrique solution yu amutoon te naxee mbaay la woon naxee mbaay lañu faloo naxee mbaay lañ ne continuer di falu tant que ñu yeewuñu ñun moom Maître El dañoo yem ñun Maître El dañoo yem ñun Sénégal bu ñu demee bay yeewu Moustapha Diakhaté moo ñuy yee bu ñu demee bay yeewu Moustapha Diakhaté moo ñuy yee Moustapha Diakhaté li mu wax képp ku ko wax yoon dal sa kaw moom ñii di défendre Moussa Diakhaté sax li mu wax bu ko waxee yoon dal ci kaw ba pare mu bëgg ñu fee nekk gëmal nañu Sénégalais yi dañuy nelaw Moussa Diakhaté dafa ñëw pour yéele Moussa Diakhaté kay Moussa Diakhaté dafa ñëw pour nelawal Moussa Diakhaté dafa ñëw ngir ñiy xool ci moom réew Moussa Diakhaté dafa ñëw ngir ndaw ñi nga xam ne dañuy xool ci moom ñu réew ndax jëfi réewante rek lay jëf Moussa Diakhaté kan la mën a yee Moussa Diakhaté ay waxam. ku ko déglu ak réewante képp nga ci mën a jël mais doo si jëlee laneen ndax Moustapha Diakhaté ay waxam boo ko dégloo doo si dégg lenn loo xam ne da lay jariñ waxi soxal ak wax yoo xam ne gone yi sax duñu ko wax wax joo xam ne gone du ko wax nag mag wuru koo wax moom heure bu waxee loxo dem ji Moustapha Diakhaté nag dafa nekk nit koo xam ne sénégalais sax dañu koo classé woon teg ko à côté ndax moom ci boppam magum jëmm mu toll ni moom génn saaga yonante bi koo xam ne fii ci réew mi ni mu fi toll yonent bi ni mu tollu ci réew mi ak ni mu toll ci àddina bi yëpp nga génn man koo saaga dara fekku la ci kon ni di dox say soxla kon tey nga génnaat saaga ak askanu lëmm kon moom Moussa Ba Diakhaté askan wi classé woon nañ ko waaye ba tey nag du ñu ko bàyyi muy wër ci plateau télé yi télé bu mu jógee jàll ci basales télé bu mu jógee jàll sa basales di saaga sénégalais yi loolu dafa war a dakk ñun bu fekkee ne dañuy nelaw ñun sénégalais yi nekkul ne Moussa Ba Diakhaté moo ñu ndax amul lenn loo xam ne mën nañ koo roy ci Moustapha Diakhaté ci ay waxam ci ay jëfam lépp loo xam ne ni ñu ngi koy jéem ak di ko bëgg du lenn loo xam ne ni njariñu réew mi la moom mu Moustapha Diakhaté ndax bu fekkoon ne njariñu réew mi la da bëgg wala loolu lay topp li Sénégalais bëgg moom Moustapha Diakhaté dina ko bëgg ndax Sénégalais président Ousmane Sonko lañ bëgg te moom Moustapha Diakhaté lànk nañ ne ak dee du ko nangul ba pare nag dañu xas ba pare di xas patriote yi waxuma la sénégalais yi rek mais patriotes yi nga xam ne nii ñoo topp président Ousmane Sonko ba li mu leen di yàq léegi dootul léegi dafa dem ci sénégalais yi nag di leen xas ñi nga xam ni ñoo wootee leen président Ousmane Sonko di leen wax loo xam ne nii ñaaw na lool ba tax na tey li mu ko jural yóbbu nañ ko lungu si te fa lay fanaan guddi tey mag lu xamal ni mag day xam li mu war a wax gone yi di ko xool di roy ci moom mais mag moo xam ne xamoo loo war a wax lépp loo xam ne ñëw na rek encaissé ko. leneen la ñu ñëwaat nag ndax am na ñeneen mag ñoo xam ne ñi ngi nekk ci télé di wax te xooluñ li ñuy wax xalaatuñ bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne moom la ñuy wax Maître El Hadji Diouf soxor baaxul. Moustapha Diakhaté taxaw ni ñi kon da leen arrangé wu leen yéen nit ñi arrangé wul gouvernement bi boo tax ñu téye tey Moustapha Diakhaté loolu na leer nañ loolu la wax yéen ñëpp ku ko dégg bu ma fenee de nee na mais da ngay fen Sénégal yéen ñëpp lay wax kon wóor na kon tey kon boo jàpp Moustapha Diakhaté waaye nag Sénégal dama leen yëgal benn affaire Senegal baye kenn moom senegal njaajan njaay la jor ngone la sir job cheikh bamba bu alaaji malik bu baye ñees bu limamu bu jàngu bi senegal gi kenn sa baye mom ko te gay bin bin bin bin ndank lan moy alku nak parce que aussi bu fekke ni jigoy top deug ju olof sen ceebu jël on s'en fout sans yi maître El Hadj ku yob rek ñaanal leen yalla yalla yërëm leen ndax ñoom ci seen ñu dogal bi yalla te ñoom ci seen jàpp nañ ne lépp loo xam ne mu ngi am fii ci réew mi yàlla dogalu ko ku yebu nag ñaanal leen yàlla moom mel El Hadj juf nag jàpp na ne ñun sénégalais yi dañuy nelaw waaye ki ñu mën a yee mooy Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté mi nga xam ne moo toogoon fii saaga yonente bi Moustapha Diakhaté mi nga xam ne moo toogaat fii saaga sénégalais yi Moustapha Diakhaté moom moo ñu war a yee réew mi nag bu fekkee na ñun dañoo am ay mag yu réew faaw ñu am ay gone yu réew loolu ci boppam mooy feeñ ci réew mi jamono jii Moustapha Diakhaté jamonoy njiitu réew moom di Macky Sall yàgg na di wax li ko neex ci président Ousmane ko li ko neex ci patriote yi te dara dara dara fekk ko ci da daan toog wax ba géex wax li ko neex te dara du ko ci fekk moom Moustapha Diakhaté nag dafa jàpp ne Sall mi ngi fi ba léegi ba tax na day toog wax li ko neex dara du ko ci loolu moo fi jeex Moustapha Diakhaté da daan toog ci tele yàq lu mel ne tamit président Ousmane Sonko dara da ko ci fekk. Moustapha Diakhaté da daan toog wax lu ko neex patriote yi dara du ko ci fekk Moustapha Diakhaté da daan toog saaga sénégalais yi wala mu xas sénégalais yi dara du ko ci fekk wala mu wax loo xam ne loxo day dem gémmiñ dara du ko ci fekk li nga xam ne moom Moustapha Diakhaté daana ko wax loolee yëpp léegi dafa jeex ci réew mi muut rek yaru wax waxi nit nekk ci réew mi mënoo ko ñu yóbbu la ca kaso ndax am réew doo fa nekk nekku magum jëmm nekk ci télé yi di wër foo di saaga nit di wax wax yoo xam ne tegginewul ñu lay bàyyi nga nekk ca réew ma di doxi say soxla comme ni nga ko bëggee loolu mënul nekk loolu sénégalais ci boppam ñoo la ci dul bàyyi ndax mënoo nekk ci réew mi di saaga waa réew mi nekk ci réew mi di wax lu la neex dara du la ci fekk li nga wax nag sa guddi gu njëkk nga fanaan ko ci karo yi bu ëllëgee booy waxati di nga xalaat bu baax a baax a baax lan nga war a wax ak lan ngay bàyyi karo yooyu jëruñu koy fubeere jëruñu koy def dara nañ la jël rek ne la ci karo yi nga fanaan fi ba bët set ndax nga xam li ngay wax bo genné lepp loy waxati nga xalat ko bu baax a baax a ndax na réew ni nga fi nekké won da doon bëgg ëpp ay loxo di wax lula neex di saga nit ni di def lula saf te dara fekku la ci melni mak sal mu nekk ci reen ba légui nguur gi dafa changé jubal jub jubbanti ak wax lo xamné lo xam la jëf-jëf jo xam bo tuddé mëna a nelaw mais su guddi gu ñëk bok fanaanee ci karaw yi di nga xam bu baax baax bo légui lan ak lan nga wara wax ak lan ak lan nga wax lii moo ci baax ba tax na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi gis boo ëllëgee du ñu ñeme wax loo xam ne xamuñu ko wala wax loo xam ne day jural réew mi nekk ci ay jafe-jafe ndax nekk ci ab télé wax loo xam ne nii da lay leer na li ngay wax nii aw saaga la mu jëm ci Sénégalais yi wax ko ba pare dem doxe say soxla wala nga dem tëdd nelaw dara fekku la ci loolu jeex na ci réew mi kon yàlla ñu yàlla defal jàmm te may ñu xolu muñ ndax ñi nga xam ne ñu ngi fi bëgg a yàq réew mi yàlla leen ci réew mi jëleen xam ne ci anam rafet lay doon wala yàlla tourné seenum xel ba ñu bàyyi seen wax ñaaw yi ak seen jëf yu ñaaw yi nekk ci réew mi yal nañu yàlla may xolu muñ te defal ñu jàmm aar président Diomaye ak premier ministre bi Ousmane Sonko defal leen jàmm ba liñ bëgg a liggéey réew mi ñu man ko ci anam bi ñu ko bëggee jaa jëf